mbokki déglukati émission yoonu njub nu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen gërëm ci déglu bi sunu mbég rëy na ndax ni ngeen fulaale émission bii di seen bos jot nanu bataaxal yi ngeen ñu bind yépp te di yaakaar ni yéen itam jot ngeen sunuy yos jërë ngeen jëf yéen rekk la ñuy bëgge tey nag dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci lii di xew mu réew mi xam lool te mu nekk aada bu yàgg xew moomu nag moo di tabaski kon nu fas yéene jàng ci li kàddug yàlla wax ci tabaski fan ak nan la tabaski sosoo te lu tax mu am ak it ndax lees war di def ba tey la yéen ñépp suñu waxee tabaski seen xel daldi dem ci yonent yàlla Ibrahima mi ñuy wax xaritu yàlla wante yoonu sarax jiitu na sax yonent yàlla Ibrahima mi tax tabaski gën a siiw yonent yépp santaane nañu rendi ab gàtt li ko dala ci sunu maam Aadama ba ci Kirist bi Aadama ak Awa daanoo ci fiiru seytaane ba lekk ca doomu garab leen yàlla tere woon ca toolu ajana def nañu li ñuy tudde moo moona yàlla waxoon na bu leer ne peyu bàkkaar mooy dee terewul nag yàlla ci yërmandeem moom ci boppam mu rendi ab gàtt muy sarax ngir muur seen bàkkaar noonu la leen yàlla tegtale yoonu sarax ngir defaraat seen diggante ndaxte kàddug yàlla dafa ne deret lañuy sellale lépp te bu deret tuuruwul mbaaluk bàkkaar du am yéen ñiy déglu loolu kon mooy xar mi tax ñuy wax tabaski sarax suñuy lakk la daan nekk waaye sarax soosu amoon na matadi gu ca nekkoon mooy ne at mu nekk dañu ko waroon a defaat ndegam matul woon kon lañ la ci yàlla jublu woon nag li ci yàlla jublu woon mooy misaal mbote mu mat sëkk mi waroon a ñëw te dee benn yoon ba faaw misaal moomu sax mu ngi gënoon a leere ci sunu jamonoy maam Ibrahima ak nattu ba ko yàlla doon nattu ca doomam jadi Isaaxa gannaaw ba Ibrahima ak Saara jabaram sëye lu yàgg lool te amuñu doom ñoom ñaar yàlla mujj leen may doom ji mu leen digoon bu yàgg Saara am doom ju góor ci màggatam muy Isaaxa Ibrahima ak soxnaam bég lool ci doom ji leen yàlla may am bés nag yàlla defloo Ibrahima lu doy waar te metti tawreeta ngi nu koy nettali naan amoon na bés yàlla doon nattu Ibrahima mu ne ko Ibrahima mu tontu ne maa ngi yàlla ne ko jëlal sa doom Isaaxa jenn ji nga am te nga bëgg ko nga dem ca réewu Morisa ca tund wa ma lay wax joxe ko fa mu nekk sarax suñuy làkk mbir mu doy waar a noonu lan la yàlla bëggoon Ibrahima def ko dafa ko sant mu jël doomam ji mu xaaroon ñaar fukki at ak juróom te bëgg ko lool mu yóbbu ko ci tund rendi ko fa ni sarax suñuy lakk ndax mënees na dégg loolu waaye nan la Ibrahima tontoo yàlla moom daal werantewul ak yàlla dafa daldi jóg rekk di dem te xamagul sax fan la jëm kàddug yàlla nee na noonu Ibrahima jóg ci suba teel takk mbaamam ànd ak ñaari surgaam ak doomam Isaaxa mu xar ma ngir sarax suñuy lakk daldi jóg jëm fa ko yàlla wax ca ñetteelu fan ba Ibrahima daldi xool seen bërëb ba fu sore diirub ñetti fan nag Ibrahima ak doomam ak ñaari surga ya di dox jëm ca tund wa xolu Ibrahima fees bi muy dem ca bërëb li ko yàlla santoon natt bu tàng te metti la woon waaye du woon dara lu dul ngir wone fu ngëmam tollu wante Ibrahima moom xamagul woon ne loolu nattu la ba ñu àggee ca bërëb ba ko yàlla wax Ibrahima dajale ay doj ngir defar rendikaayu sarax mu riime ca matt ma daldi yeew Isaaxa doomam teg ko ca kaw rendikaay ba Ibrahima tàllal loxoom daldi jël paaka ngir renni doomam waaye malaakam borom bi tollu ca kaw asamaan woo ko ne ko Ibrahima mu tontu ko ne maa ngi malaaka ma ne ko bul jëmale sa loxo ci waxambaane wi bu ko def dara ndaxte léegi xam naa ne ragal nga yàlla ci li nga ma gàntuwul sa jenn doom ji nga am Ibrahima gestu gis ci ginnaawam kuuyum xar mu béjjane lonk ci as ngarab Ibrahima dem daldi jël kuuy ma joxe ko mu wuutu doomam nekk sarax suñu làkk noonu Ibrahima tudde béréb boobu Yehova yire li tekki borom bi dina ko indi mbokki déglukat yi dégg nanu ni yàlla tege woon dee Isaaxa doomu Ibrahima ak gannaaw gi ni mu ko musale ci dee ci yiwam kàddug yàlla nee na nun ñépp a ngi mel ni doomu Ibrahima jooju maanaam ay bàkkaarkat lanu te yoyowunu lu dul àtteb yàlla waaye yàlla sopp nanu ba wàllu sinu ak pexem mucc mi lan mooy pexem mucc moomu nettalib tabaskee nuy won ne yoonu mucc bi yàlla tëral mooy yoonu sarax su mat sëkk si gis nanu it ci nettali bi ni yàlla indee am xar mu deewal doomu Ibrahima xar ma sikkul jar ba foful ci as ngarab la béjjën ya lonk woon su xarma amoon benn sikk nag dootul mat ba mën a wuutu doomu Ibrahima ci kaw rendikaay ba kon sarax si yàlla indi woon xar mu mat la woon yéen a ngi fàttaliku gannaaw ba aadama ak awa bàkkaare te yàlla dogaloon ne ndegam payu mooy dee mbaalug bàkkaar du am su deret tuuruwul kon képp ku bëggoon ñu baal ko ay bàkkaaram dafa waroon a def saraxu mala mu sikul mu rend ko jébbal ko yàlla ne sarax suñuy lakk noonu la mala ma amul woon genn tooñ di deewe wuutu tooñkat ba noonu rekk la yàlla mënoon a baale doomu aadama yi seeni bàkkaar tey wéy ci njubteem lu ko moy dootul nekk aji jub noonu yàlla jëfandikoo ay yonent yu daan yëgle ñëwu musalkat boobu yonent yàlla esayi waxoon na ne xarum sarax su mat sëkk si bés bu ñëwee dees na ko fitnaal dóor ko gaañ ko jam ko te rey ko ndax sunuy baakaar te it mbugal gi nu may jàmm ci moom lay dal kooku nag mooy rammukat bi xar ma deewoon ci palaasu isaaxa moom la doon misaal mu war a gane ci àddina dee ci palaasu bàkkaarkat yépp ngir yàlla mën a baal képp ku ko gëm naka noonu gis nanu ne li xewoon ak ibrahima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 dama wàcc ngir def sa coobare noonu toxal na jëfin wu jëkk wa ngir wuutal fi weneen wu bees te ci li kirist def coobarek yàlla bi mu joxee yaramam sarax benn yoon ba faaw moo tax nu sell ci bàkkaar bés bu nekk sëriñ si dañuy taxaw di liggéeyal yàlla di sax ci def sarax yu mënula dindi bàkkaar yi mukk waaye nag sëriñ bii di kirist bi mu saraxee sarax bu am doole ngir dindi bàkkaar yi benn yoon ba faaw dafa toog ca ndeyjooru yàlla di xaar ba keroog mu daaneel ko ay noonam ci kanamam xarit yu ñuy déglu lii lépp am na solo te war nañu ci bàyyi xel ndaxte li wér te leer mooy deretu mala mënul woon a nekk peyug baakaaru nit ba faaw misaal rekk la woon mu waroon a dakk benn bés ndaxte mala ak nit yemuñu maana mbir mi am na fu mu waroon a yem moo tax yonent yàlla Ibrahima ne woon borom bi dina ko indi cig yonentam kon yàlla wonoon na Ibrahima liy xew mu yëgle li naroon a xewi ca tund wa xar mi wuutoo woon doomam Isaaxa ndaxte kat warees na ci xalaat su fekkee ne keroog yàlla indi woon na am kuy ba Ibrahima rend ko ci palaasu doomam lu tax nag mu ne borom bi dina ko indi waaw lan la borom bi waroon a indeeti li borom bi waroon a indi mooy mbote mu mat sëkk mi mbote mi sikkul wàññikuwul la doon yëgle booba mu sant yàlla ci li mu ko indil xar mu wuutu doomam ci rendikaay bi wante muy gërëm yàlla it ci li mu a indi mbote mu mat sëkk mi benn bés ci tund woowu muy sarax su gën saraxu xar mi musal doomu Ibrahima sarax si yàlla wara indi su am doole lay nekk ngir musal nit ci dee ak ci safara xabaar bu baax bi Ibrahima doon yëgle mooy yàlla dina indi moom ci boppam mbote mi ngir sarax si benn yoon ba faaw noonu kenn dootul soxlaati rendi ay saraxi mala at mu nekk la yonent yàlla Ibrahima ak yeneen yonent yi gisoon ci mbirum mbote mu mat mi daldi agsi yàlla wàcce na yërmandeem ci benn janq bu mësula sëy janq ba ëmb jur doom ju góor ñu tudde ko yéesu kon musalkatu àddina bi juddu na ca betleyem mbotam yàlla mi ñëw na wolof njaay nag nee na tung ne du teew ñuy nataal xar ma wuutu woon doomu ibrahima ka doon misaal ñëw na moo yéesu musalkat bi yonent yàlla yaxya mi ko jiitu ci woon di ko xàllal yoon wi benn bés gis na yeesu muy ñëw mu ne ay taalibeem xool leen kii mooy mbotem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaaru àddina gannaaw gi yéesu ci boppam woon na dina dee ni xarum sarax ngir fay bàkkaari àddina noonu mu jébbale boppam ñu daaj ko ca bant ba ca tund woowee woon isaaxa loolu la xarum ibrahima ma doon misaal takkandeer la woon ci musalkat bi yàlla digge woon ngir musal bàkkaarkat yi ci àtte bu jub bi loolu dafay wone mbëggeelu yàlla ci doomu aadama yi yàlla aji mbëggeel la mooy turam wi ñu bare di wut ba bëccëg ci seen xam-xam yu rëy yi te mënuñu ko gis mënuñu ko nànd sax te li leen tënk muur seen bët ak seen xel moo di deewu kirist gi ci rax moo tax kàddu yàlla ne yëgleb deewu kirist ca bant ba ak ndof la ci ñiy sànku waaye ci nun ñi aw ci yoonu mucc gi doole yàlla la yow miy déglu tey ndax gëm nga ne mbugal gi lay may jàmm ci yéesu mi mbotem yàlla la dal moo tax yéesu ne ñëw leen ci man gëm leen ma te dinaa leen may noflaay képp ku ma gëm doo jaar ca àtte ba ndaxte àtte nañu ma ci sa palaas ni xarum Ibrahima ma deewe woon ci palaasu doomam noonu laa deewe ci sa palaas kon gëmal Yeesu borom bi bu ko defee dinga mucc mbokki déglukat yi fii lanu yem ak yéen tey xanaa li ngeen dégg tey ci mbirum tabaski xam naa ni bokkul ak ni ngeen ko xame woon kon su ngeen amee laaj bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla wax ne saraxi mala yi dañu doon misaal xéewal yi waroon a ñëw waaye du ñoom ci seen bopp ndaxte deretu mala yi mënuñoo dindi baakaar yi